ngi lay ziar di la delloo sa waaj waay bu baax di la ñaanal jàmm ju bëree bari di ko saaku ci yow di wax ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi julli suñu bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di wax jërëjëfe Baye di wax jërëjëfe Baye di wax jërëjëfe Baye Niass di nuyu dina Baye yëpp di nuyu waa Saloum sama cosaan ñu dëkk bi ñuy wax Niassène Babou Dado di nuyu waa Passy di nuyu waa Ndianka waa yaa boobu yëpp maa ngi leen nuyu ñëpp maa ngi leen nuyu waa Njongoon waa Mbasis waa Sum ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu waa Ndianka sama gars yi ñoom aadi di nuyu Gora Diop bu baax di ko nuyu bu baax di nuyu Pape Diouf sama xarit di nuyu Malick Niass waaw di nuyu Malick Ndiaye di nuyu Moussa Fass sama rakk di nuyu Ëmma waaw maa ngi nuyu gars yëpp mboolem koo xamante ne yaa ngi taxaw pour jàppale Siteu maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Malick Ndiaye bu baax di nuyu Mbaye Diakha Mbaye délégué xam nga di nuyu ñoom alaaji gars yëpp maa leen nuyu bu baax di sant président bu baax gis nañ depuis boobu léegi mu ngi taxaw di ma woo di ma nemmeeku góor même chose Pape juuf waaw ñooñ ñoom Tafa ñoom Diallo gars yi xam nga boo yëpp maa ngi leen nuyu daal sama grand frère yëpp tamit maa ngi leen nuyu sama mag yi ma bokkal ndey ak bàyyi samay doom baay yëpp maa ngi leen nuyu bu baax di leen delloo seen wàcc waaye ñoom ñëpp di nuyu waa Saloum yëpp daal bu baax di nuyu sama jigéen Khady Diola maa ngi koy bu baax xam nga di nuyu sama jigéen Ndeye Khady di nuyu sama soxna tamit bu baax di ko ñaanal jàmm ak tawféex bu bëree bëri. kii surtout bu saalum la ngay wax bëree na huit combats six victoires deux défaites maa ngi nekk écurie Doudou Bakassar waaw nekk xale bëggoon Siteu rek ah bëgg ko mu neex ma xam ma ma doon dégg ay kàddoo moom mooy doy quoi moo taxoon ma bëgg ko ñëw gars yi ne ndigam Saalum nga dëkk faa ñu faaw turu Saalum bi bokk ci yow mais man doomu Saalum laa préféré woon pour tuddee sama bopp gars yi ne man nañ def Siteu bu Saalum gars yi ne ma aw moom ay caaj xam nga ay affaire waaw gisante ne ñaari yoon ñaari maa fa dem seeti ko mais côté boobu bëggoon naa fi wax tuuti rek quoi ndax man. làmb ku ne Siteu bu Saalum sa xel day dem ci Siteu bu mag samay combat yëpp damay dem ci moom wax ko bi mujj sax ci weeru koor bi passé laa fa dem jour yi mu sedd la ndëgoo ma dem fa toog waxtaan ak moom jege ko sama combat mun waa dinaa si jàpp quoi mais su ma ko wooyee du jël su ma ko envoyé vocal tamit bu liiree du tontu damay wax caadu fooraa mën na ma seede sekk tamit man ma seede quoi na su ma wooyee si da jëluma la dama leen wax na leen woo naa mbër de te sama waxoon daf may jàpp sama combat te nit tamit bu amee yow benn link mu tuddee la boppam bu xewlee war na la mën a gis wala nga woo ko téléphone kat ah ñaax loolu day neex ci xol quoi mais waxoon naa ko ci benn sit waxoon naa ko muy ñaari yoon mais dootuma ko ñetteel nag quoi. waaw ñi ma koy laaj day bëri mais man nit su ma xamul ci yow lu bari damay màndu ndax dem naa fa ñaari yoon demati fa sekk damay déggante moom caadu foora damay dégganteeg moom. mais man depuis boobu nag wax dëgg fa yàlla si laa supprimer numéro am quoi ku dee ak sa bàmmeel ndax mën naa combat wéet ci moom yaakaar pour mu jàppale ma moom moo ma ko waxoon quoi après dinaa jàpp bës nga ñëw fi li may wax mbay baas mën na ma seede asilam ndax man moom ñoo fa àndoon jour boobu loolu nag bokk na ci woon lu ma gën a métti quoi dëgg fa yàlla même du xaalis sax ñëw bi day am solo wala woote bi day am solo quoi loolu laa bëgg ci moom mais du xaalis si lu mu mën a def ci làmb pour am ko man mën naa ko am ndax am naa gëm-gëm bi am naa bëgg-bëgg bi te naa ko. non non non man maa sama bopp jour bi mu fay dem jour boobu fa dem si yàlla fóode jour boobu fa laa yendu ak yeneen gars yi fa lañ yendu def yendu mu nice quoi wax dëgg fa yàlla. yoon bi mu fay demaat tamit maa taal sama moto ànd ak sama xarit dem fa mbay baas bañ fa demee jàppale ko moom sedd la ay ndëgu weeru kooram yëpp ba pare ñu toog waxtaan def ay photo ku ne dem ma ne ko sama kombaam maag fa bu Fass Mbaab. bi passé man après dinaa la jàpp ci combat bi mais xam nga ba tey gisuñu ko tamit quoi man jàppale bi sax garaawul quoi mais par communication bi man ak moom day am solo waaw man loolu dama ko doon bëgg sama diggante maamu mais xam na nag suñu borom namm ko du ma ko ci sikk quoi déedéet mënu ma ko ci sikk bu bëree damay jaral may def lépp di génnee sarax ndax moom di ko ñaanala ah pour mu am ndam bu ñu werante ji si ay nii sax damay siisu ndax ma nit ki su ma la bëggee bëgg naa la ba pare quoi leneen lu mel leneen xoolatuma leneen ci yow waaw bëgg naa la ba pare da loolu am na sama diggante man ak moom waaw coow naa ndax moom ah coow bu métti jour combat ak Sa Thiès sama carrière fa la naroon a yem jour bi ko Sa daane dañoo génn ci stade bi dégg benn booy ne ku fi wax Siteu rek ñu nangam xam ma saaga ma siisu dam bay dóor benn booy téema mais xeer bi sama nii la ma jaar xeer boo xamante ni bu ma daloon sama àdduna ay yaaxu ma mënoon ko ndax moom di dagg di dem stade ak yeneen ak yeneen quoi loolu mënaloon naa ko mais instant nii nag laa mu xam rek waaw ku ci ne ak soo yoon quoi. temps booy dund naa ko mu metti nag waaw ma nekkoon ndaw boo xamante ne ma teeloon të. sama papa jël ma yóbbu ma daara ma nekk fa kër ma jibel maa ngi leen nuyu bu baax di am contentement si ñoom di nuyu sama gars yi ñoom gànna ñoom naar gars yi maa leen béggee ñoom ñoom kii waaye nu mu tudd Mbaara maa ngi koy nuyu bu baax a baax Mbaara moom jàmbaar la ci man quoi maa ngi koy bégg lu bari. sama temps boo yëpp fa laa ko defee huit ans laa ko def jàng daara foofu daara ba Ousmane Thiam waaw du nuyu aadi doomam bi ñoom bëkk mbay maa ngi leen nuyu bu baax. waaw bokkoon naa bokkoon naa taalibe ñu gënoon a ràññee nag quoi am fit man amoon naa fit moom dama ko mos a judduwaale moom mais xaritu ñëpp laa woon tamit quoi mais man ba may nekk daara dama bëggoon affaire de football quoi si laa nekkoon. boobu nit ñi di yor pot di yalwaani sax man bal lay yor damay taxaw di jongale gars yi di may xaalis jamono boobu pokkati lañ ma doon wooye ndax déggoon ci bal lu bari man yaakaaroon naa ne sax du ma nekk mbër football laa gënoon a bàyyi sama xel nit ay làmbo mais natt la quoi mais en plus tamit da nga nekk ci famille boo xamante ni dunduñu làmb quoi surtout ma Saalum fi ma dëkk amoon na ay mbër nag mais mbër yi dañoo teel a bàyyi bëre waaw mais jàppale bi day des ñi la war a jàppale léeg-léeg ñooy toog di la xalab waaw loolu bokk na ci lu ma gën a metti te boo dajeek ñoom day mel ni nekkul ñoom la déedéet day mel ni du ñoom liñ daje ah boo yaa ngi nii bu lan wanee ginnaaw mboolem lu ñaalu ne dañ koy teg sa kaw der mais àdduna ku ci nekk boo amul baatu ginnaaw li ngay yóotu doo ko jot man fa laa teg sama boobu. làmb bëgg-bëgg surtout ma sama benn xarit bu ñuy wax Malick Ndiaye kooku moo ko dugal ci làmb moom mos toog rek jël 1000 francs jënd ko ay patu meew tegal ñu ko. ñuy bëree ma jël ko mën a booy bi war na mën a nekk mbër quoi fa laa commencé dugg man ak moom nekk ci nekk ci du xootu man ak moom waaw sama papa nag bëree naa fii deux combats arena xaama trois sama papa bëggul ma bëre jour bi may njëkk dem làmbu mbapat bi ma demoon mbapat boobu bàndalu la woon benn dëkk pël boobu 66 mbër la woon ma bëree ñetti combat fanaanal dem ñibbi ma xëy di dellu sama papa ne ma bul dem ay timisment yi ba muy dugg ma bàyyi ko dugg ci jaaga ji rek ma yollee ko dem ma dem jël ñaari saaku ceeb bi indil ko ko ba mu ñëwee dana ku indi lii ñu ne diw moo ko fi indi mun ne fu mu ko jëlee ñu ne doroon bëre ñu ne ku mën a daan bay jël li boobu maa ngi ndaw nekk ci li booy bu ndaw xam nga mooy loolu dem na foofu nag di booxante di jaayante ba yàlla suturaal ma ñëw di dem di jël ay ay drapeau xam nga di bëre ay mbër yi am tournant ci làmb yàlla di ma suturaal sama diggante man ak ñoom paa bi sama combat maag Fourrière bu Grand sama baay ma bàyyi arène rek moo ma daan ak maam Mor bu Fass fin deux mille deux mille deux mille deux mille dix deux mille dix neuf deux mille dix neuf deux mille dix huit bi lañ la ma daan fourrière. non sama troisième combat ren boobu jaagoorul damay nëbbatu rek di def su ma amee combat sax du ma ko ñemee woo ne ko am naa combat gars ñoo koy way ñoom en plus si lañ dem tooba sama papa Bagnès Grand Dakar moom tamit mu nekk suñ papa baax moom tamit seetaan nañu tamit bañ demee toog waxtaan ak moom mu woo sama papa ni ko ni ko bëgg-bëggam la. te neexoon dem mel ni neneen yàlla dimbal yàlla dugalu ko ci loolu kay ñaanal ko ci sama papa ñaanal ma. ma nekk ci affaire bi di nuyu sama nijaay nag jim yaama waaw kooku sonn na sama carrière de ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wér waaw di ñaanal sama nijaay yëpp Omar ak baa ak nijaay Ibra Fall ñoom ñëpp ak nijaay Tafa ñëpp maa leen nuyu bu baax xam nga foofu mooy sama base quoi ndax foofu mooy sama cosaanu yaay moo tax ma bëgg ko moo tax lu ma dugg rek man ak ñoom dañ ciy ànd dem ba jeex waaw di nuyu mboolem kuy saalum saalum daal maa ngi lay nuyu bu baax baax baax di nuyu suñu père père Jaxate di nuyu suñ ko su mbay fay ak pek bu baax di ñaanal sama boy bi Cikiri di ko ñaanal sama xarit di ko ñaanal yàlla may kon dem ci combat bi mu jëm di ko ñaanal ndam bu baax. waaw contentement firi nekk na xam ne man man mbër laa léegi ndax bu njëkk dama doon ñëw foofu sax ma dem ci ay maara ñu may jox ay fas su ma ñëwee gis paa bi damay buure dagg fas bi da bëgguma mu gis ko damay gis ne ma li nga takk nii pour lan la. booba paa bi mu ngi woon Saalum sama combat fii la mais bu dee mbapat la guddi bi da ngay boot sa saag rek takk sàcc ay mbaam dem mais bu fekkoon paa bi jamono ba mu ngi woon fii moom dina yéeme torop torop torop torop torop torop billaahi mais nag yàlla suturaal ma ba lim ci bëggoon yëpp defal naa ko quoi waaw amaguma lépp ci làmb nag mais maa ngi sant yàlla bu baax sama morom li ñu am ci làmb yëpp am naa ko làmb kër laa ci amagul ak tukki moom laa ci amagul ci làmb trophée yu ñu teg ci làmb yëpp jël naa ko mbapat naa bu baax. àll Saalum bi yëpp amul fooy dugg laajte Sédhiou bu Saalum ñu ne xaw ma bari nañ trop booy moroon bii nii rek daan Serigne Ndiaye barki démb daaw jël naa ci moom ñetti nag mbasis nag bi ma njëkk a jël ci kaw gànja faama laa jëlee bu bétanti maa ngi ko jëlee moom benn dëkk bu ñuy wax Toubacouta sama deuxième nag bi ma jëlaat ci kaw rajaxe laa ko jëlee mbaru mbapat sama deuxième nag ci moom laa ko jëlee moo tax ñu ma ci bëreel bëri na ay ñoom rajaxe bandi 40 ay Toubacouta ñoom ñëpp daan naa leen arobase locale ñoom ñëpp daan naa leen waaw man wax dëgg fa yàlla def naa marqué naa apprenti ci làmb quoi mais lii sama lii sama jafe ci làmb mooy problème mu combat waaw man awma bàjjen ci làmb làmb ji ba amul bàjjen doo bëree boo nekkul comédien doo bëree te maa ngi mobiliser bu baax ñu may tëgg xam nañ ma bu baax waaw arène sama premier combat maa ngi ko bëreeg rëm bu yëmbal daan ko sama deuxième combat maa ngi am petit kona bu tëngee kaay baax la xama ma daan ko si la am fourrière fourrière daan ma sama troisième combat ren. defet boobu li mu ci dund nag dafa ma metti de ba léegi nii dafa ma metti dama daanu fourrière nekkaat ci affaire yi di jug une heure wala zéro heure di ko jug di dem entraînement ñu ne mbër bi génn kati guddi la day génn guddi may wér sama ruq di jooy sama combat maag déggoo mu ngoy taxaw si combat Reug Reug Bébé Saloum maa bëri spécial bi ma dugal ko top 5. combat boobu mu ngi top 5 ba léegi wax ji finwul sax wala moo ne ku la bañ daa wareen bu la bëggee rek xamal ne pexam sottiwul ñu nekk ci rek ñu nekk ci muy métti ñu nekk ci ma jël lion bu sukuta daan ko ñëw jël temax max daan ko ma jëlee t si laa ñëw jëw jël Boy Jules bu écurie Falaye daan ko si la am Mamor si combat Mama Lamine Garga 2 mu daan ma combat boobu nag ay problème da ci laxasoon quoi li waral gën a ma ñàkk sama combat loolu si la bokk nee na gaa daan na ma ku dee ak sa bàmmeel kon bi ma dëgg sama combat maag Boy Zil dafa amoon ay coow yu fa amoon gaa ne du ma ngémboo ci koñ bi moom ay détail gaal bi ma doon ngémboo bi ma jigoon ñu tere ma fa ngémbootu ma fa ma jug dem sama premier défaite gaal bi ma doon ngémboo damay dem pour génn kër gi borom kër gi na bala ñu dem xam nga locataire am na ñoo xam ne respecté nuñ kenn mu ne dañuy bale kër gi ma ne ko ñun dañuy dem laamu bu ñibbisee li wat ci kër gi yëpp dinañ ko def ñun suñu wërsëg duñ ko génne waale duñ duñ ko xam rek affaire de làmb dafa am dafa am ay réalité quoi mu bañ a ñu loolu ñu bale combat ak gàll bi yëpp naas ñu dem ñu ñàkk ñibbisi waxuma waxul ba léegi nii depuis 2018 xam nga 2019 mais fii ku nekk loo am rek suñu borom moo la ko may loo ñàkk tamit moo la ko xañ nañu rafetal quoi moo ëpp solo yenn ñu def ni amul benn sens fii lépp day jeex. sama defet mu mujj bi comme noonu la demee gaa koñ bi ku nekk wax ca xaamukat yi di wax rek naas. ma dem ñàkk ñëw toog jàpp sama bopp waaw mu métti ma ñu bari daw ma nag barki bàññees bi ma yaakaar ñu bëri gisatuma leen ñu ma doon woo ñu ma doon defal lu bëri gisatuma leen te man xam naa ne ñii téye nañ seen loxo ci man mais du ma leen ko mos a wan li ma war man dinaa ko séex man ak ñoom ku mu ci gëj a dégg dinaa la woo téléphone ku ci dem yaa xam demal sama yoon nekku ci yow du ma la toobaat sa ginnaaw mais dina am fulla joo xamante ni li ng fi bàyyi woon da nga fi fekk lu ko a pire déedéet dama koy bañ xëy dee si da daf ma war man nga wax si da gëj naa ko dégg téléphone garaawul mais Siteu war na ma wala wax na ma lu mu war wax ba ilaa yomi diini du am en passant di ci nuyu grand góor bu baax ndax damay déglu ay waxam tamit bu baax di ko sant moom tamit ndax depuis démb ba léegi bawul ko moo tax ma gën a bëgg làmb sa guddi bu ñu doon wàcc asilem bu ma demee jàngi ñëw ma wàcc guddi bi la ñu dem daje école Ndariña nekk foofu bi contact waaw ba léegi kanam bi ma wanoon démb barki Bañees moom lay gis si moom ñaanal jàmm mook jabaram bu baax. waaw li taxoon ma doon siisu nag mosuma dem fenn ñu ne ma combat bi da nga koy ñàkk. man suma combat maag sama combat bi pas ci biir géew bi laa ñàkkee laa bi mais li ma waroon def yëpp def naa ko ñi ma li ñu waroon def yëpp def nañ ko. waaw booba xam naa man am na loo loo xamante ni gisatuma ko ci man quoi te boobu bëreegu ma at bi sifle ma dox ci kaw gan gi sànni ko man mosuma dóor mbër mun naa ci bu at bi sifle dama lay jàpp daan la dem ñibbi te bu at bi sifle man may ñëw man du ma la xaar yow nga ñëw man damay ñëw boo yoree say dóor kaay rey ma mais su ma la jaabee laa ma jeex. mais après nag ma xam ne loolu nekk luy continuer làmb nit ñi bu ñu xamee ne yow bëree kan nga waaw dañ lay indil bagaar bu ñu xamee ne bagaar kan nga dañ lay indil bare ma dem uti ñaar yëpp tëral teg waaw di dugg ci mbapat yi di dem di ñëw di daan ay champion mbëri mag moo tax ma pour ma am combat sa problème la pour ma am combat nii problème la damay toog at bu ne benn combat lay bëre nee naa la aw ma bàjjen ci làmb aw ma promoteur boo xamante ni dinaa moo ci dinaa mën a boot ci ginnaaw mu may jàppale amul loolu moo maa ngi ci làmb mbër gënu ma ñeme entraînement mbër daaxu ma bëre mbër ëpp ma fit barki bàññees mi ma yaakaar mais nag ni ku ne ak wërsëgama dama ne jàpp ne loolu la yàlla na mu ci man looloo gën ci man mënu mu ci dara mais chaque jour dinaa ci nekk chaque jour dinaa ñax ah burul làmb tamit ñu ci leneen ah. sama combat maak Petit Kona méttoon na métti boo xamante ni dóor na ma dóor boo xamante ni fi ma daloon dama buggoon daw génn géew bi waaw sama fii moo daggoon deret bi di senn bët bi mel ni lu am tooke quoi di def nii boobu xam naa ne nag waaw xam nga rek làmb dafa bëri ay réalité quoi ma xool gis gars yi ci kaw ma dox ci kawam jàpp ko dama ko jàpp samay supporter waaj bi dama ko ciitam ngem bi gars yi waaj stade bi te Petit Kona su ma juumul benn defet la am man maa ko daan defet mu mujj fan yi fan yi am na defet te jour bi may bëri ak moom jour làmb laa ko gis combat boobu Jackson moo ko tëgg booy Dakar laa ne ban mbër laa war a bëri mu ne gis naa mbër bi di la joxoon béjjén si laa xam ne man moom lay bëreel ba am na ci booy boo xam ne ñoo bokkoon écurie sax ba mu toog ci kaw tribune bi dana tey Siteu du daan kii ñu ne lu tax mu ne kii suñ dëkk luñ fa teg da kay jël ma xam li ma xam noppi yàlla bëre yàlla may moon ndam daal ci kaw ma sant ma sant yàlla daal bu baax. bari na mais adversaire boo wax Siteu bu Saalum day bañ boo ne Siteu ñu ne ban Siteu la mais boo ne Saalum rek ñu delloo avance bi <laughs> barki baa ñëw. maak Cheikh Super jamono maak Cheikh Super jamono laa mu daaxul loolu. làmb daaxul loolu booy sëy sax làmb maa moom daaxul loolu gënuñu ma baax palmarès ñi ma daan amul ko nit xamul ci làmb booy jil keroog jour bi ma koy jël la ñëpp tey na si da tey mu dee dama ko taxañ dama ko jàpp bal ko baraake ko wër ko ndomb mu yaakaar dama koy yenu ma tent ko ne ko jugal ñibbi booy jil ba ma koy daan booy rëm ba ma koy daan ba léegi si la am soj ba léegi sojam mënul wér ndax ñoom ñëpp dama leen taqal suuf billaahi wallaahi mais nag maa ngi toog di xaaraa ah, maa ngi entraîné guddeeg bëccëg adversaire bu ñëw mu nekk sama naataango ma bëre yow sama yoon bi yaa xam te ma ko bu arène bi fayul ma dugg ci àll bi compétition waaw moo di anta ñu ngi waxtaan man ak moom am na mbër yu mu seeti woon comme Thiat Daouda Fall nee na ma Thiat Daouda Fall est-ce que dina bëre yow wax daal ak man mais mënuma si dara waaw ah, ñu ñëw ñu bëree rek ñu compétir ñu xam ne ay ndaw lañ at yi dafa gaaw buñ bëreewul tamit dañuy perdre waaw ndigam ñun ñëpp làmb koo juróom rek loolu da nga xam ne kii mbër la léegi mbër bu bëreewul nekkatul mbër man at bii ren su ma bëreewul damay bàyyi làmb saison ren bii su ma amul combat damay bàyyi làmb te su may bëree damay bëri adversaire bu ko jar tamit du ma yaaxamti pour bëgg a bëree kese ndax boo immobilisé daaxu ñu ma mobilisé gënuñu ma ñeme entraînement daaxu ñu ma sonn ci làmb man bu dee làmb sonn rek ak xol bu rafet mooy tax mbër gañe ci man du ma perte dara ci làmb message comme bi may lancé mooy nañ bàyyi mbër yi ñu nekk si jàmm làmb dafa am lu koy neexal am lu koy naqadi mbër bu nekk bu ñëwee lu mu indi am na droit moog adversaire am ñu jëflante mais man nanguma tey nga jël gàllaaj di ko tuur mbër wala di ko xapp mbër gàllaaj bi ngay jël di ko tuur mbër leer na la leer yàlla ne li nga koy tuur nii li koy yàqal la mais nekk lu koy defaral mbër du la xapp lu lay defaral yenn yu bari yu ñu def noonu nañ ko bàyyi boo jëflante teg sa moroomu mbër su paree li nga defoon dama nga dindi ko am na mbëri yu bëri dañoo yàqu pour làmb làmb moo tax mënatuñ am dara mënatuñ wér mënatuñ jag loolu yëpp yenn affaire yu bon yooyu noonu moo ko waral sa nawle la bu ngeen bëree yaa ak moom xam nga nu demee dama nga dindi li nga li li doxoon sa diggante yow ak moom man nag mbër bu ma dajal lu la neex defal man mboolem lu may may ndam lu nekk rek dama ciy dox mais du ma yàq doomu aadama loolu moom ma ko sama dund. làmb guddi ñu toll neex na mais man des naa ci gisam boobu ndax mënuma am komba waaw loolu rek moom métti ci làmb. waaw c'est que làmb léegi boo bëri lu wax doo bëre waaw faa nga nekk di terale di wax rek comédiens yi rek daanaka léegi ñu ëpp lu ñu bëri ah ñoom la ñu fay xaalis bi waxtaan la ñu bëri ndax ñoom ñooy sañ wax lu keneen gi dul wax man am na loo xam ne tey su ma ko posé une question xam ne du ma ci wax am ñoo xam ne tey boo bu duñ xaar nga laaj leen ko après nag gars yi nekk di diw diw diw diw diw diw ni ku ne ak ni mu siiwee ni ku ne ak ni mu man ni ku ne ak lu mu bëgg man làmb moom bu ma demee ba nar si yàq nit wala ci wax ci nit loo xam ne gaw ma ko moom waaw ma teg sama ngéem dem bàyyi bëree quoi en plus tamit di ñaanal sama yaay bu baax di ko ñaanal yàlla yërëm ko xaar ko àjjana soxna si maa ngi koy ñaanal moom tamit yàlla defal ko jàmm ñaareel noo yaakaaruma ko sama dund nag waaw dañ ne boo amee aaw bu baax sa xel waratul nekk ci leneen waaw te ki ma yor yàlla dimbale na mu ba xam na ma comprendre na ma man comprendre naa ko te suturaal na ma tamit te xam na li ma bëgg mu di ko def xam na li ma bañ mu di ko bàyyi di ko ñaanal jàmm ak tawfeex yàlla suturaal ñu ba mboolem lu nar a yàq sama diggante maa moom rek yàlla buñ ci teg suñu bët waaw di wax ne daal àdduna amul solo daal. waaw ni ku ne da ngay xëy ci dara sax da ngay dem wuuti naan leeroon nanga nga amam mais da am fu lay wuuti rek yàlla mooy joxe ni ku ne ak lu mu gëm fii mbëri ñu fi dégg ñu bari ñu téye làmb yëpp wax ma ku ci amul dara boo ko ci deful da ngay dem nekk ci naka sudul noonu rek te naka sudul noonu boobu bu la arrangé tey tamit suba dalay lay yaaxal man ne mbër bu mu neex toogal ba ba retraité ba bàyyi làmb doog di uti jabar mais damay dégg sama nijaay mu ne. àdduna ku la njëkk am taaw moo la raw làmb lii affaire àdduna la rek ñun bu am diggante boo xam bu ñu fa tolloo suñu doom moo ñu aw ñu bari nag defuñ loolu seen xel dañuy def naan ay xale laa bu mu amee jabar nii ak nii déedéet loolu amul làmb entraînement la barki Seydina mbër bu yeewu heure di tëdd heure hmm? loolu mënul yàq ci yow dara kanaa nga bañ a bëgg man du ma simee ko esaan ñu ne amul doole du ma simee ko esaan ñu ne dafa am jabar déedéet su ma la ko waxul Ah, ñun ay gor lañ quoi dañoo war a dañoo war a gérer famille dañoo nekkuñ di base yu ci kenn pour en cas ëllëg waaw ndax am na loo xamante ni gis naa mbër yoo xamante ni dama wax la benn affaire est-ce que xam nga topp làmb kese moo tax mënatuñ am dara en général mbër bu retraité si làmb pour nga am jabar problème la ndax am na loo xam ne day des si yow te bala ngay dindi day fekk mu weesu est-ce nga wax bi am na loo xam ne day des si yow te boo amul jabar fi ngay fi ñu la xamee li nga bëgg boo ko teelu réglé da nga ko bëgg a réglé mu tëla waaw man gis naa mbër yoo xamante ni bàyyi lu ne dal na leen ci làmb dafa am benn mbër dama koy ñeenta chaque jour benn mbër bu ñuy wax miñaan ko mbëru mbappal la woon bu daay séeréer la dëkk ko fi mu entraîné lañ ko yàq ay jalu suuf lañ ko jalal mu ñëw tas ko fa la daanu paralysé ba tey jii nii beega lay doxe di ko ñaanal jàmm mii neen duñ nag quoi mais loolu neexuma te bugguma tamit ñu def ko keneen xam nga te boo xoolee en général li lay rey yëpp ñi la sës ñoo koy def gars yi nañ ni ne looy woote sa diggante yaa moom na nekk gëm na nekk loo bëgg tamit quoi même pas di woote ni théâtre boo wanee ginnaaw di jouer film amul sens fii ni ku ne lu waaye war a am suñ borom dala koy may kenn mënu ci dara mais nañu rafetal diggante nit ñi ak nit ñi di wax si diggante nit ak nit lu baax même pas lu ñaaw waaw di ñaanal ñëpp jaamu daal. waaw am contentement bu baax buñ koy seetaan suñ xol day sedd waaw tax na ay bu ma doon bu ma doon dem entraînement yi ma comme ça man dama doon kontaan ngoon bi boo pare man dem kontaagaat guddi bi. mais vingt et une heures pile mu jotee rek li ma doon def def naaw damay dem seetaani ko damay seetaan ba pare doog di sangu bugguma mu raw ma su ma rawoon fu ma rawee mardi dama koy koj vendredi si ngoon laa koy koj dama doon yaaxal dem entraînement sax waaw ndax dama doon toog di na man est-ce que est-ce que dinaa mos a bëree combat bañ ma dugal top 5 yàlla def loolu ma di ko gëm ba ba may jour bi may bëreeg déggul bu ngoy laa ne tey nag jàpp naa kaañ tey ma rey ko damay dugal top 5 di wax tamit di ko nuyu sama xarit la xam ma di am contentement bu baax ci moom war na ma ne làmb woon làmb jeex na ndeysaan fu mu dajeek man daf may nuyu waxtaan ak man ñaax ma loolu mooy àdduna man du ma dajeeg mbër keroog dama dama gis benn affaire maam Mor dama daan ñu daje esaan mu yëkkati ma loxo fi ma toog laa toog daw fekk ji ko nuyu ko kaf moom rey ak moom loolu mooy àdduna romb waaw di romb di wéyante di nga am ñoo xam dañuy bëre ak mbër sax daan la ba pare de duñ la bàyyi dañu nekk ci yow lu ne ñu wax lu ne ñu def loolu amul sens ku ci ne dafa am famille. am na loo xam ne tey su ma la ko waxoon tey yow même bu la méttul sax ki nga bokkal deret daf koy métti te boobaa daf koy jaral lu nekk quoi dañ tàppe xol yi ñoo xam ne ñun ñëpp benn lañ ni ku ne li war am kenn mënu ci dara billaahi wallaahi waaw di leen wax ne liggéey bi fi ngeen ko teg foofu la yàlla mooy maye yal na leen yàlla may lu gën ci yéen yal na leen yàlla may gën ci yéen ba fii bërëb bi buñ fi ñëwaat nañ fekk mu demee neneen neneen loo xamante ni da dugg rek sa xol sedd sa xol gën a sedd sax lay wax ndax ay professionnel ñoo fi nekk ko waaw te liggéey nag bu ñëpp booloo di ko def liggéey boobu day neex mais liggéey boo xam ne am xoolante bët loolu du liggéey loolu cof liggéey la te na ngeen liggéey te ci yoon ni leen ñaanal jàmm ak tawfeex rek man nag bañu ma dara lekk bi ma gën a bëgg boo ma ko tegalee naa gis sa kanam rek sa kanam moo may gën a bëgg loolu lekk ko waaw ah, ñëw baax naa man moom amu problème yooyu waaw man maa fa yàpp daal bëgg naa moom <laughs> ak mbaxalu saalum amoo ñu ay saalum saalum lañ waa ah, ñun dañuy bëgg yooyu noonu quoi mbax bu saalum bi am laxas bi wala bu am yàpp bi waa boobu leneen la bu am diw ñor bu baax bi limon bi lépp lépp di jar-jar yi ngay seen kaane tëmbal bi ci digg yi xam nga loolu leneen la <laughs> waaw di nuyu gars yëpp di nuyu sama mbokk saalum saalum yëpp di nuyu sama waa dëkk ñeseen baaw daaro di leen wax ne maa leen tàllal loxo depuis boobu ba léegi maa ngi gis ñenn ñi nag dañuy jàpp mais ñenn ñi dañuy jàpp jàppalu na gars yi jóg taxaw pour jàppale ma ku mu mën a ànd ak man te yàlla tax maa ngi lay woo ku ku ku bëggul ànd ak man billaahi du ma la sikk gëmal li nga gëm ma gëm li ma gëm te yàlla jeexul maa ngi nuyu sama mbokk Saalum Saalum yëpp nag di nuyu Adi di nuyu grand Ibou Diop di nuyu grand Goro Diop bu baax di nuyu sama rax Tafa ñoom Diallo Pape Diouf Malick Niass Pérési Aliou Ndiaye gars yëpp du ma leen fàtte billaahi maa ngi gis seen taxawaay chaque jour sama diggante man ak ñoom chaque tout le temps ñu ngi may woo di ma nemmeeku di ma ñaax di ma gën a yokk jàmbaar di nuyu sama jigéen. Khady Joola maa ngay nuyu bu baax di nuyu waa kër Bakar yëpp cat ba cat bàyyiwuma kenn maa ngi lay nuyu ñoom ñëpp sama jabaru mag yëpp maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp ku ci nekk maa lay tàllal loxo di nuyu sama mag Ibu maa ngay ñaanal jàmm ak tawfeex bu baax di nuyu sama waa dëkk Ndiaye ñesan maa li ab sax maa ngi lay nuyu ñoom tamit bu baax na seetaan nañ ma di nuyu waa Njaageen tund boobu yëpp maa ngi lay nuyu waa Kër ma jibel di nuyu waa Njànka waa Dagg Biram waa Passy hmm, waa waa Sokone yëpp maa leen nuyu bu baax di leen wax ne am naa contentement bu baax di nuyu waa benn tali bi ma dëkk nag di nuyu ñu ma dëkkal bu baax di leen am contentement si ñoom di nuyu ma bu baax a baax di ñaanal ci li ci combat bi suñ borom may ko ndam moo dafa leer di wax ne na ma gars yi jël nag ñu bëree war naa bëree tamit waa di nuyu mboolem dëkk bu ma mos a dem Saalum rek tax ngemb maa leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di am contentement si ñoom ñëpp di gën a nuyu sama soxna nag bu baax di ko ñaanal jàmm ak tawféex ak taysiir bu baax. di ñaanal famille yëpp jàmm yàlla defal ñu jàmm daal ci barkeem di nuyu góor di nuyu jabaram nag tamit asu maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit depuis démb ba léegi ba mu jàppee moom tamit bàyyiwul madame Diop di nuyu janga waaw moom tamit samay ñoom ñëpp samay nitu démb lañ démb ba jàppee bàyyiwuñ di nuyu grand pape Seck président lem gi di nuyu sama baaba dem si yàlla papa pape Diène maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu doomam Habib Ngone ñoom Mata maire bi yëpp maa ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax tamit bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñ mboolem koo xamante ni sama dëkkandoor la rek maa ngi lay nuyu bu baax su ma la xamee su ma la xamul maa lay tàllal loxo nga ñaanal ma yàlla defal ma jàmm yàlla boole ñu jàmm ñu ñëpp si barke yonent bi jaajëf jaajëf